sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. ci si kanam sama place laa jëlaat ci làmb te incha la le huit. li xam ne damay jëlaat sama place ci làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour bëre ak moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loox ma yeb ma ba jël ma loolu rek a bëgg foofu làmb su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah rabbi te làmb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëre man ak

yaa de naax ngay topp mais man rek laay topp Adji Sarr <laughs> waaw maa ngi nii gëj a gise rek waaw làmb làmb gars yi nag mënuloo jël moo tax nga gëj maa gis incha allah yaa naax day ñëwaat de <laughs> waaw ran at yi kenn xamu ko fi mu toll xanaa rawaa <laughs> rek